waaye dafa nangu sëbal bi ñëw ah loolu la ñu yàkkamte ne lan la ah. yow xanaa xamoon nit ñi dañoo yàkkamte. ah dina naa sëbal bi ñëw de policier bee ko jàpp xaaral ma lijjanti premier ñu def. wax ko mu jox ko téeméeri mu mu dem. policier bu la déggee di nga am coode moo ko. waaw. jërëjëf eh, eh, eh, bi yow dégg sànq yaa ngi mais boobu jël suma xaalis bi baaxee. yow mer lan la yow di bëgg dugg ba yaa wax. mais mu jël ci ma xaalis. déet soxna si man xaalis bul tooñ kii laalu la kii bu toogee ba léegi jàmm la kii. bàyyi ko doom bàyyi xaalis bi ma fóotu bi mais jot. loolu maa xamal sa bopp laa wax. man nga doom bàyyi man moo jox boppam cër. man bi depuis mbuur laa ko jëlee ba léegi day wax rek ku yëg mooy mu mbuur laa ko. na waa sabar da ngay bëri ci permis ji ñu dem. depuis mbuur laa ko jëlee ba ba léegi day wax rek da bëri wax. chauffeur bi mu jox alkaati bi téeméer. soxna si yow xanaa xamoo lii nga wax nii mën na la tëj kaso. ah loolu la xamul yow doo toppatoo sa affaire rek. déedéet waa ko police moo laaj téeméeri ma jox ko téeméeri mu ñibbi foofu. yow foo jógee yow fan nga jógee. maa ngi Grand Yoff lay dëkk. Grand Yoff nga dëkk. waaw xanaa xamoo li xew si dëkk bi. xam na. ah li nga wax nii bu la jàppee dañ lay tëj kuy bu la déggee da lay jàpp. wala nag nga woo gendarmerie man jàpp la. ñu woo gendarmerie. mais gars yow xaw ma xeetu nit yi da ngeen nan nga leen mën a. waaw ah, waaw kii ma dalawul sa paas. salaamaaleykum ma ba sonn mbuur laa ko jëlee. boo nekk sa yaay doo ko wax. ñëpp 1000 francs lañ fay. mais koy wax loolu. bi nekk sa yaay doo ko wax boobu. grand ñëpp 1000 francs lañ fay xam nga ñaata la ma fay 300. mais mais bi saaga na ma. xañ na ma client yi bëri 300 la fay. Mbour ba Dakar 300. dama la wax nga yàgg ni ma sama mbaam yi nekk si kaw. waaw sa waay man yàgg naa lépp ji mbaam yëpp yaa ci kaw mais 300 la ma fay. waaw ana chauffeur bi. chauffeur bi mu ngi ñëw policier bee ko jàpp. waaye yéen da ngeen da ngeen dem ndànk mu ñëw. nga ne la ma yàq xam de gënoon nañ ma xam ne maa dem ba biir Dakar laa jëm nañ dem na ko chauffeur bi ñëw ñu dem. mbir bi dafa bëri wax quoi sànq ba léegi moom moom sama client yëpp la ma xëy. mu client client bu yàgg mu xul ak moom. waaw xam nga ñëw. waaw xëy na maa ngi wàcc. Eh, da nga bëgg nga moytu masaaru nit ñi mel nii yow xamoo kii xamaan na ko nga wax loolu boo génn fii mu rey la nga yaay perte. suñu xaalis yi léegi boo ko jiyee. di sa xaalis boo koy denc denc ko bu baax. Ana ma kalpe. Eh? Sawa. Ya ba eh. eh. na shi ma kalpe. Kan mo yom sa kalpe? Ma kalpe wa. Ano? Pa pa de. Mo ko tope da lere. Ana ana ana wa. Sawa kan da. Fi ki da bo jam. Bu ya ba nga ba Kom ko jamu rek. Sa xal da tan da la ñu dem. Bu ya ba nga ba mu sen. bu may je jaay ci Bu may foto. Mami la yo ko foto. ah kii rek dafa laa kii Padois la la wax lay arrêté de. Padois laa yem nag bu dee baax na nga wàcc. mais garaaw xam nga boo yeggee Padois maa la ñu wàcc. boo yeggee Padois maa la ñu wàcc. waaw Padois laa wàcc de. <laughs> bëri nga wax dafa jëm. appareil bi bëri na wax. Dakar nga jëm non man fii Padois laa wàcc. xaw ma loo def boo booyee bu Samba mi ci kaw.